Ah, waaw salaamaaleykum mon frère maa ngi leen maa ngi lay ziare Aziz di nuyu ñi fi teew yëpp di nuyu waa Sénégal àdduna bi partout dans le monde xam naa ne léegi moom réseaux sociaux dafa avancé ba nga xamante ni leer na ma ne ñu ngi seetaan live quoi <laughs> vraiment di wax encore alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bésu yonent bi nga xamante ni tey àdduna bi yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy màggal yàlla nañu yàlla defal ay xéwal yokk sutura si yokk mën-mën gi Sénégal aussi suñ borom def fi xéewal ak jàmm tey nag Aziz comme ni ko buur géwél waxee ak ni ko Badara waxee ma fekk fi aussi sama mbokk askanu géwél yi ndax vraiment euh, sama xol dafa sedd trop li tax suma xol sedd nag mooy tey ma fi ñëwee fekk naa fi sama askan ndax ñii géwél yi ñooy suma deret ñoom laa am ku leen teral rek mën nga teral ndax kenn amul lu dul say mbokk fekk fi aussi say mbokk fekk fi say xarit vraiment euh, may kontaan trop ñëw fekk si la fii parce que xam naa ne fii mooy sa base fii mooy sa sa sa fii mooy say reen euh, wax dëgg yàlla comme ni ko ba dara waxee mbégte la ñu am mënuñu la nag remercier comme ni nga koy waxee tout le temps ndax nit bésam rek la am nit ku ko taxawu ci bésam sur tous les côtés kooku deselatu la dara et je pense que ni c'est pas la première fois suñu relation man ak yow ak euh, Baye démb la tey soog a ñëw muy relation boo xamante ni relation wu valeur la relation wu respect la relation wu leader la ak seen xarit seen doomu ndey Ilimane Lam je pense que ni ñu bokk aussi génération Euh, représenter suñu réew à chaque fois ñu ngi góor góorlu pour képp koo xamante ni ñu ngi ñuy suivre rek ñu leen di won ay exemples yu am solo donc euh, tey nekkatoo sax ndamu Sénégal waaye ndamu Afrique nga ndax yaa ngi wane la bon exemple Bercy bi nag mën naa ne mooy li gën a tuuti ci li nga def parce que je pense que ni nit bu nekkee ci projet nga tàllal ko loxo ne vraiment ñun ay sénégalais lañ kon vraiment képp koo xamante ni sénégalais la. nekk ci projet non bu ñu seetaan nañ ko jàppale kon yow dépassé nga maanaam euh, xaw ma na lañ koy expliquer mais léegi pour man leader nga ndax leader rek mooy mooy taxawee noonu Aziz leader nga eh, suñu sak nga ñun suñu génération su sak nga aussi ci ci ci diine ji ndax la nga def Touba def ko Mérina def ko Tiwaawan ak yeneen këru diine yi nga xamante ni amaana sax kenn yëgu ko donc loolu ñun nga ko defal donc moo tax tey ma am mbégte nag ne gars yi Aziz na leen dem fekk ko si ay mbokkam na leen dem fekk ko Tiwaawan ndax xam naa ni Tiwaawan ku ko fa fekk mooy fekk nga ko fi mu gën a bëgg ci àddunaam donc ñu ngi lay sant bu baax encore di la remercier encore une fois di remercier aussi sa Sarak Baye Ale ndax mën naa ni relation bi bu demee nii lépp ci moom la mu nekkoon xale comme ni ko buur waxee yàqalu la bëgg la lool bëgg la nag wax dëgg yàlla nga gënal ko boppam présenté ma la présenté ma Ilimane Lam ba tey relation bi suñu borom suuxatee ko nii kon donc vraiment kontaan naa trop yàlla na yàlla guddal sa fan loo mën ren yàlla na nga ko mën déwén ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mi borom guddi gi di remercier maman mère bi paa bi soxna yi ñi ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah suma frère yi fi nekk yëpp nga xam ni tey mun naa ni ñun ñëpp ay frère lañ ci am mbégte nag ak contentement ci li Pape déplacé wu ànd ak maxu ànd ak gajagaak ñi mu àndal ñëpp ñëw fas yéene màggal guddi gi ak ñun loolu ñun ñoo ci war a sant yàlla ndax bu ñu jógee di màggal yonent bi ku ne munoon ko defee sa kër ak fa nga yaakaar mu déplacé wu ñëw fii nag yaakaar naa ñun ñoo ci war a sant yàlla bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek Pape jàmbaar la ci li mu nekk nekk ndaw di ci liggéey ñun ñëpp ñu war a bokk nday bokk baay jàppalante ndax Sénégal àdduna sax lay wax foofu la toll tey ku ci nekk lépp loo mën a taxawoo sa morom ci li nga nekk ci la muy liggéey pour mu am ndam danga war a takk sa ndigg pour def ko ndax ndamu Pape mooy ndamu Sénégal mooy suñu ndam ba tax na lépp lu mu nekk dañ ci war a taxaw dañ ko war a jàppale ndax c'est un jeune comme tout un Sénégalais qui a besoin que ku nekk ak foo mën a nekk ak côté boo mën a nekk jàppale ko mu réussir mission am ndax ñun ñëpp ñoo bokk génération suñu mission mooy ñu réussir pour le bien-être de la population pour le bien-être des Sénégalais kon man kontaan naa trop ci ñëw bi mu ñëw fii ndax guddi gàmmu képp ku ñëw ànd ak yow yendoog yow bokk ak yow rek mooy sa nit la te nit la koo xam ne aussi tam comme ni ngeen comme ni ngeen ko xamee ci moom mi ngi ci li mu war a nekk te loolu rek moo am solo ci àdduna nekk ci li nga war a nekk nekk ci fi ñu lay xaare ndax moom nii rek la war a def comme ni ko vraiment moo mon ami Gadiaga waxee c'est un homme de la banlieue c'est un jeune de la banlieue te ñun tey fierté ndaw banlieue mooy fépp foo nekk ci domaine boo nekk nga réussir ko ndax bu ëllëgee ñu mun ko coller ak identité banlieue bi nga xam ni ci ay jamono dañ ko yaakaaroon dortoir la boo xam ni nit ñi dañuy liggéey rek ñëw tëdd fa di fa nelaw kon boog ñun ñu sant yàlla bu baax a baax yàlla nañu yàlla defal yoolu gàmmu yàlla nañu yàlla defal aussi nangul ñu suñu gàmmu te bu ñu ko nangulee tam bu ëllëgee muy defal ñu ko muy kërug janatul firdaws kontaan naa daal lu ci des mooy ñu ñaanalante rek yàlla defal ñu sutura zaahiran ma baatinan mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di wax ni bis bi ñu dajee chance la ndax bisu lislaam la danaa dégg mag ñu baax ñi di wax ni am na ndaje yoo xamante ni am oto bu baax am essence indiwu fa nit suñu borom moom mooy tànnal boppam ñan ñoo fay daje ñuy wax nuyoo jullit boobu ni ko suñu borom tënke muy salaam rahma ak baraka képp ku teew fii ak képp ku fekke bis bi ak képp ku ci jéem di def ci jutu juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla na la yàlla defal salaam muy jàmm defal la raxma muy yërmande yàlla suñu borom defal la baraka mooy lépp loo song ci àdduna suñu borom barkeel ko buur nag dafa baax mais wax fa dëgg yàlla cëru wax ci turu Pape Diouf moom moo ko moom cëram la mais dafa fekk ni communication dañ naan émetteur la ak récepteur fi muy génnee ak fi mu jëm fi mu jëm nag jëmm ji yàlla dafa dogal man ak moom bàyyi rakkam mat na ci seede dañuy tise ay relation yu sincère dañu ko bañ ba des fois bu ñu waxtaanee ba mu yàgg dafa am benn mot bu ñuy lancente mag moom mooy défi générationnel dama koy wax ni ko Aziz yàlla mooy def ay biddiw ci ay génération ñoo xam ne dañuy bokk ay at yàlla dogal kii nekk dans son domaine icône kële nekkaat ci domaine am icône kenn nekk domaine am icône mooy Pape jouf dans la banlieue bi ñu bokk Pape Diouf moom la yàlla di génn mu nekk la voix officielle de la banlieue mujj nekk la voix officielle de Dakar du Sénégal et même de l'Afrique weesu ko dem du monde Aziz la yàlla di def mu nekk l'opérateur économique jeune de la banlieue bii génn mu dem ba nekk ko pour le Sénégal mu dem ba nekk ko Afrique de l'Ouest bay xëccoo ji dans le monde Badara Gadiaga am ko ci beneen sphère Matar Diop nekk ko dans le monde de la production ak leneen ak leneen loolu nag bu yàlla defaree ces lumières lañ koy wax ay biddéew la yuy tàkk ci nit ñooñu di génn yàlla def ku ci nekk ci sa domaine de prédilection nga mel noonu li ñuy mën mooy la fédération de ces force booloo ko mooy ajamaatu rahma googu yàlla wax muy booloo boobu nekk doole. je pense que Aziz c'est ce qu'il a compris Pape c'est tout moom it loolu la mësa a comprendre dans sa vie yàlla dogal nag Aziz nekk sama xarit Pape nekk sama xarit ñu àndandoo di doxandoo lu bari. ba bi ñu songee bis bu mag bi nga xamante ni mooy Bercy di ci dem yàlla xam na ni moom ku ko xam xam ni am na ay ñaanu waajuram mën na métier respecté na métier kon ragalul fu mu jëm mais dafa neex ci àdduna boo sumbee nga gis ñi nga bokkal génération ak surtout ñi nga xam ni ikoon lañ ci seeni génération ñu génn taxaw ni dañ ciy jàpp am na ku jël kàddu léegi di wax ni bi Aziz di bi Pape di dem bersi Aziz daf ko daggal bii yóbbu ko ko xëy na dafa seede fii rek mais loolu li ko Aziz defal ci ay nit jàpp naa ni bu fekkoon mën na li remplir salle bi mu mobiliser ko fii Sénégal def ko parce que daf ma ni Badara man dama jàpp ni Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk waruñu seetaan képp kenn koo xamante ni ñoo bokk génération ngay dugg ci dara di ci am gàcce donc man bisu pap bi jàpp leen ni bis ni ki tey comme sama bis la man mook Matar nag ñu amaatoon yeneeni relation yu weesu relation bi Matar tëggee Bercy bu ju Diouf donc vraiment mu nekk lu am solo mu nekk loo xam ni yàgg na ko def mais nag mbaax yàgg na am mais ci benn domaine buñ ne nee monde de la culture ku mel ne Pape Diouf ñun ñu yëngu ci wàllu euh, production ak mataar ak yooyu Aziz di ci def mbaax mais bu ñu gisee tey mu nekk la bien bienfaiteur de lislaam aussi man ak moom ñu ci échanger lu bari Pape Diouf dafa may woo mu ni ma Badara xëy na sawaay jàpp na mais sama xol dafa sedd ci li mu nekk di ko def Touba di ko def Tivaouane def ko Léona Niassène def ko Ndiassane bi ñu nekkee Paris bëriki démb ñu ngi jokkoo ak moom suñu avion bi muy jóg avion moom mi ngi wàcc ñun bi ñu nekkee ci corsaire bi egsi moom avion mi ngi wàcc mu ni ma frère yàlla na leen yàlla accompagner ci projet yi ngeen dem ñun ñi ngi wàcc ni maa ngi koy déglul Pape ni ko gis nga Aziz avec sa modestie lim ñuy ñaanal ci li ñuy doxi Pape ni ma entre nous il faut ñu fexe écourter voyage bi parce que gàmmu gi il faut mu fekk ñu ñëw pour ñu mën a dem ba kër Aziz saafonte ak moom ci la waxee Matar ni suñu billet yi il faut ñu fexe ñu egsiwaat te yàlla xam na ñu ngi ci ay liggéey yu ñu nekk en France di ko def studio lu bari pour le Sénégal et pour l'Afrique mais moom mi tey ndam la ci jeunesse bi daf ciy jàpp vraiment comme ni ko buur waxee nit aussi nitam rek la am ñun dañu ko bëgg ba amuñu ci moom sago ndax nag suñu frère la mu mu mu nekk di représenter la musique sénégalaise et africaine de la manière la plus noble et de la manière la plus élégante